ngeen joge Porokhane sëriñ bi recevoir leen xalif général des Mourides euh, lan lañ mën a ci ndaje boobu d'abord. waaw ngeen baal ma camarade ma wax leen avant rencontre bi ñu def sëriñ bi ma wax leen li xew maanaam xam nga ñun dañu daje ak ministre bi démb sept trois maanaam ci pour nu waxtaan si li nga xam ni moo moo xew ma dégg nag ay déclaration yoo xamante ni bi bi ma ko déggee daf maa jóge kaw parce que su ma déggee ñu ni rencontre boobu am nañ ci ay points yu ñu d'accord loolu loolu lu garaaw la parce que ñun d'accord ñoo ñun benn point 23 mesures yi nga xamante ni bi état bi jëloon na ko d'accord ñu ci benn ñoom bi ñuy wax dañ doon wax si préavis boo xam te ni mooy bi passé woon te président defoon ci ay décret ci loolu lañ doon wax ñu ni leen loolu indiwul parce que boobu waxoon nañ ci ba ñu jox nañ ci liñ ñu fi jox kon lu bees li nga xam ne mooy indi coow li nañ wax si loolu mais kon bu ñu déggee ay camarades yu def déclaration di wax naan da da am nañu ay points yu ñu d'accord démb loolu amul bi si gën a garaaw nag mooy bi si gën a garaaw mooy ñu déggaat suñu camarades yi am ñu def ay déclaration ni ñun léwé nañu moo d'accord nañ ci léwé moo d'ordre bi démb avant ñu dem si sëñ am journaliste bu posé ko ay question ni ka xanaa kon sëñ bi da leen a ñaan ba tax ngeen bàyyi mu ni déedéet loolu c'est grave su fekkee ne yàlla dafa dogal ñun ñu dem si sëñ bi te am ñoo xam ne demuñu si sëñ bi lan lan mooy respe bala ñuy joxe déclaration ñun ñu demoon ñu xaar ñu ba ñu ñëw waaye demoo jëkk joxe déclaration ñu dem loolu baaxul ci ay camarades yu ànd di liggéey sëñ bi nag lañ fa jëlee lu leer la ñun bi ñuy dem dañu ni sëñ bi woon nañu kon nan dem wuy jugo ci sëñ bi te am ñoo xam ne demuñu si sëñ bi lan lan mooy respe bala ñuy joxe déclaration nun ñu demoon ñu xaar ñu ba ñu ñëw waaye demoo jëkk joxe déclaration ñu dem loolu baaxul ci ay camarades yu ànd di liggéey sëñ bi nag lañ fa jëlee lu leer la ñun bi dem dañu ni sëñ bi woon kon nan dem wuy jugo bi ñu ko wuy jee wax nañu ko li nga xam ne mooy suñu jafe-jafe muy vingt-deux mesures yi nga xam ne état jël na ko te nangu nu cee teggi dara mbàkke nu jub màggal gi ñu ñëw di la wax maanaam jafe-jafe bi ñu état teg bi ñu ko ko waxee nag ba pare dama koo wax rek yem sa mu wal ma bopam ma dugalat sama bop ci bir yeen ngoy gis mu ni wax nga ba pare kat waye magal gi la bëggoon nga wax dama beug grève bi ngeen bayiko bañu magal ba pare seen jafé jafé yo ngeen wax bu soba yalla ak yonente bi dañ ci taxaw lolu dama wax ni man day waxuma man en tant que taaliba Cheikh Amadou Bamba waaye dama wax ni ku dib julit da nga xam tane bi benen keur bu ko bu nu ci demone bu nu santee lolou lolou lañuy def parce que dañu am jër ci ñun ñu am jër ci ñom motax bimu ñaané mu loolu ñun ñafa téwon teewoon ñëpp d'accord nañ ci ñu may sëñ bi loolu monsieur yoyu nga xamni tek nañ ko te d'accord gu ak ñoom dina di surseoir euh, moderne bi bakara nga xamanteni ni bi magal gi jallal waye nak dina leen wax leen bu magal gi jàll danañ dellu si sëñ ni ko kat amna luñ la gaaraloon sëñ bi si ay jafé jafé Mbàkke ñu ngi la doon siyaar ci wa di la laaj foo si yalla nañu wax nak lo xamanteni bi bii lu nu gënal bu nu waxoon lu nu gënal it lam mu wax sax la nu jàpp waaye yaakaar ni señ bi du seetaan état bi du tek ay jafé jafé tam man ci dara te dindiw ko ma wax ni nak kon yeen jëwër yi ma ngi leen di gërëm bu baax ndax respecté ngeen mo d'ordre bi manam nimu nimu nimu amé sax man njot ma ni di ngeen ko défé non way nañu fexé nak ba ni nu andé won nek ben bu ko bayyi su màggal gi jàllee dinañ dellu si sëñ bi déglu ko ba xam lan la la lu ko état bi wax su fekkee respect bi ñu jox sëñ bi état bi jox na ko sëñ bi teggi ko alhamdulilah respect bi ñu jox sëñ bi bu ko état joxul sëñ bi lu dellu sa loon loolu laa di wax bi si des nag mooy bi si des nag mooy sëñ bi nee na nañu bàyyi grève bi ba màggal gi jàll waaye ñoom it nañu ñu bàyyi liñ ñu tegoon ba màggal gi jàll dama ne yëpp len li ngeen doon yëpp daw leen heure yi ngeen doon daw koo si xamante ni kii arrêté nañu la bu sa moromam safar ñëwee na taxaw si sa ginnaaw xeex bi loolu la